soo xoolee poste boobu depuis 2009 ba léegi ñu ngi ci def suñu compte yaakaaroon ne nag moo gën a am sécurité moo tax ñu bàyyi yeneen yi ñëw poste mais depuis 6 mois yi nii ñu ngi daw suñu ginnaaw xaalis mënuñu see jot heure boo fi ñëwee dañ la xaalis amul te loolu du yoon loolu du yoon parce que mënuñu ñëw. ñuy ñuy ñuy joxe bourse yi ñuy joxe ñuy joxe bourse yi di di fay salaire yi te bàyyi fi ñu fi denc seen xaalis te ñun ñoo ëpp yoo xam ne tey ñun ñoo waroon ñëw ñoom ñu recevoir ñu wax ak ñun lu leer jox ñu suñu xaalis mais képp ku fi am projet instant bi nii projet taxaw na képp ku feebar tamit mënoo faj sa jaboot ngir lan lépp poste moo ko waral ñun nag ak luwaas yi képp. képp koo xam ne daal mi ngi post ñu ngi lay ñaan nga ñëw bokku ci xeex bi parce que dañun président la ñuy waxal instant bi fépp fu ñu war a jaar ñu ngi jaar mais ñoom dégluwuñ ñu kenn faale wuñu te suñu xaalis lañ fi denc ñaanuñu saraxuñu suñu yelleef la ñuy bëgg gars yi jox ñu ko moo tax ñun ñëpp ñu dajaloo président nag ñu ngi wax ak moom moom nag moom mooy tous les présidents du Sénégal moom lañ la ñuy waxal parce que directeur ba tey waxuñu dara lu leer parce que nit nag su la joxee te dem nga mënoo kaa jox da ko war a wax lu leer wala nga teg si condition yoo xam ne tey da ngay woo waxtaan moom ci lu leer mais waxuñu lu leer dégguñu ko moo tax ñun ñu taxaw fii di wax ak moom lu ñu bëgg nag mooy président wax ak ñun ak ministre de finance Moustapha Ba si jéem a wax parce que am na foo xam ne ñu ngi fay dugal xaalis yi te ñun ñoo ko gën a yeeyoo kon nag lu war nag mooy ñun ñu jox suñu xaalis lool fii mun naa la man fu mu ne nii mbooloo lañu mais exemple rek man lu gën a néew néew néew mun nañ ko bañ a tudd mais ay millions la man rek ma sama compte tey lu mu dee rek ay millions la te boobu ba léegi ñu ngi ciy daw ci ginnaaw mënuñu sooy jot kon loolu nag fu ne nii benn nit nag su fi dencee lu ëpp 2 million kon ñeneen ñi nag kon munu kon ëpp na ay milliards soo xoolee fii am na ñoo xam ne sax ñëwuñu am ñoo xam ne ñëwuñu am ñoo xam si région yi lañ jóge passé day kii loolu daal moo tax ñu taxaw fii def li point de presse bi wax ak le président ñun président daal la ñuy waxal mu wax ak ñun mu gestu ñu parce que suñu xaalis la am nañ ci droit nag lii nag suñu président nag suñu déggul nag am na leneen rek lu koy xaar loo xam ne tey suñu droit ñun ci la ñuy nekk lépp loo xam ne war na su pour ñu jot suñu xaalis ñun dinañ ko def duñu yàq nag duñ toj mais nag dinañ def nag lépp loo xam ne yoon may nañu ko rek dinañ ko def maa ngi leen di nuyu ñëpp samay doom ak samay mag yi ma fekk ci biir banque bi waa di wax suñu naqar rek ak sun coono ak sunam naqar ak sun coono ak sun ñàkk sun liggéey ak ñàkk sun euh, euh, paas waaw ñun daal ñu ngi joytu pour ñu jot sun xaalis bi ñu fi defoon ndax da xaalis bi xamul nu xaalis yi xamul ñun ñun ñoo ko moom xamuñ moomuñu ko ñu doon ñu dénk ñu di ci dugal ci banque bi xamuñ ñoo moom xamuñ moomuñu ko ñi ñu doon dénk ñu di dugal ci banque bi amu ci sax confiance ñun lu ñu la ñuy wax ndax defe ñun ñoo lekk xaalis bi ñun nag ñoo ngi joytu fu fu sun baat yam ñu ngi koy jooy ñu dimbali ñu ngir yàlla te yàlla rek tax ñu jox ñu suñu xaalis ñoo ko moom sàcc ñu ko lebuñ ko def ñaanu ñu ko ñoo ko moom ñu ñu jox suñu xaalis te yàlla tax ñi feebar ñi ngi nekk ci ñi ngi fi dénkaane woon bëgg jot seen xaalis bëgg a fajo ji mënuñ cee jot ñi fay luyaas ñi ngi dénkaane woon bëgg a jot seen xaalis mënuñ cee jot ñi bëgg a liggéey seen kër dénkaane woon seen xaalis bëgg cee jot mënuñ cee jot kon nag ak ñu jóge bitim réew ñi ngi ñi ngi leen xamal nag bëgg ñu fayul xaalis ay client kenn fi dénkaane kenn duutu fi dénkaani ngir yàlla ak yonent bi jox leen ñu suñu xaalis jox leen ñu suñu xaalis Macky Sall ñu ngi lay ñaan ngir yàlla yow mi njiitu réew mi di di di di bàyyi ñëpp ak Macky ak ah, soxna ah, soxna Marème fay Sall di yaayi ñëpp ñu ngi leen di dimbale ñu ngi leen di ñaan ndax ndimbal te yàlla rek tax jox leen ñu suñu xaalis sonn nan sonn nan torop ndax lopp ñetti weer ngay daw but bu boo xëyee paas ñaw ñetti at ñetti at ngay ñëw ar boo xëyee paas ñëw heure boo xëyee paas ñëw métti na si jaboot dimbale leen ñu te yàlla tax ñu ngi leen ñu jégalu nag bu baax. nous sommes des clients de la poste suñu xaalis lañ fi dénkaane xaalis biñ koy joxe dafa neexoon poste boo dem ci seen Sénégal da ngay verser sans problème deux mille vingt ba léegi poste boo dem day daw responsabilité am mu ne mu naan la xaalis amul demal ci beneen ti fais le de des postes du Sénégal doo am. 2020 ba léegi léegi dem na ba poste bii rek direction poste finance bii moom kese mooy joxe xaalis sur l'ensemble du territoire sénégalais boo foo mënta nekk ci région yi yëpp fii la ñuy ñëw si semaine bee am na ñi fa fi doon fanaan ci région yi la ñu ñu jóge amuñu tuteur da ngay ñëw chaque jour que Dieu fait paas ñëw nga déplacé wu ñëw ñu ne ñun ñu naan la xaalis amul soo leen laajee ñu naan la xamuñu kañ la te ñaanoo sàccoo leboo danga nga jël si li nga moom dem na ba da ñoom dañuy dàq si seen locaux yi naan sor sorte ah ki ki nga dénk mën naa la génneel sama sama kër loolu fan la amee état donc moo mën a teg lii ni doomu bi aadama waaye nag état ngi yàqal boppam parce que da dafa dem ba découragé loo kiliyaanam yëpp am na ñi ci ñi ci ñi ci ñàkk njaboot parce que dañoo feebar fajoo leen yàlla yàlla def nu ñu gën am na ñi ci dàq ay ay luwaas fayuñu am na ñi ci fajuut ñoo ngi nii ay ay ay projet yu bëri échoué na ay projet yu bëri mooy projet projet yu bëri ñu échoué na lool yëpp ngir pos non non poste am na xaalis poste l'état l'état dafa bari doole ñun dañoo gëmande suñu dénkee état duñ ko nga sa ñàkk waaye nag a ah, moo moo moo ngi bëgg bëgg mel neneen ñun lenn rek lañ bëgg nañu jox suñu xaalis dañ leen ko dénk ngir yàlla ku la dénk nee na jox ma jox ko fii ñu feebar dañ fi bëri dañuy jóge hôpital ñëw maire bee chaque jour que jéefee day day dem dialyse ñëw fii rang xaalisam la soxla pa pa baa ngi nii ñun xale yi da da ñu am suñu suñu projet 2020 nag ba léegi sur l'ensemble du territoire nag laa la wax poste bii rek moom mooy fay kese kese te du ñu fay lu ëpp 20 personnes su xaalis amee te weer bi une fois deux fois waaw président de la république ministre bi ministre du budget et des finances ñu ngi lay ñaan directeur général de la poste Diaité directeur poste finance jallo ngir yàlla yonente bi dalloo leen ñu suñ suñ suñu xaalis ñaanoonu ñu leen te yéen a ngi maye xaalis feneen yéen a ngi maye xaalis eh delloo leen ñu suñu xaalis ngir yàlla ak yonente bi